maa ngi dellu di nuyu bokk jullit yëpp di leen siyaare di leen baalu xàq di leen baal xàq tey ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mboolem jéggal ñu dellu di tuubalaat yàlla suñu borom ci mbooleem suñuy rëcc ci na ay jaam lañ ñu doy di taxeebu lool te it di def ay rëcc rëcc te du doon suñu jubluwaay mën nañ koy waxit te du doon suñu jubluwaay nañ koy te du doon suñu jubluwaay te xay na it lanu war dëgg dëgg dëgg ci nanu ko war a jaamoo ak sellal ga ca war ak yéene ja ca war fexe yi ba la koy yàq yépp ñu mucc ci lu jafe la ndax ku ne xam ne ni jëf balaa mën a defaru suñ borom di ko nangu dana jaar ci jaaruwaay yu bare bare bare bare dana mucc ci nit ci xeeti jikko yi yi nga xamante ni moo ko yàq te yooyu yëpp it lu jafe na kon la man mën rek mooy di jéem suñu kam kàttan di nemmeeku suñuy pas-pas di nemmeeku suñuy wax di nemmeeku suñuy jëf di nemmeeku suñuy melo rëcc rëcc gaar gi di ko ko tuubal te saxoo ko ak jullit day saxoo tuub ak jullit it day saxoo ñaan ak jullit day saxoo sant ndax ku xëy rek yaa ngi lu mat cant nga bàyyi ko xel am na ñàkk koo bàyyi xel li ëpp ci ñun nag duñ ko bàyyi xel suñu muñ ak jullit dafa war di muñ di xool ni ci sa gannaaw te bañ di xool it sa kanam ak jullit it fu mu toll góor góor lu ci muñ lu am solo la ndax am na loolu dara du ko saafara lu muy muñ te muñ yoon la jëm ci yàlla woo xam ne jaam bi suñu borom teg lu sabab sabab bu tax mu war a muñ mun gën a xam ne na ci sabab lu ibtiqaa li dana ko ca am waaye mun nag doonut loo xam ne dangay ngay jàmbate jàmbate jàmbate jàmbat ba mënatoo dara nga ne ah naa jàpp ca jàppoo ca fa nga ca doon jàppe mooy fala la gaar waxtu woom la gaaree ca nga koy muñe dolli ca sax sant ko ndax xamoo lu tax lim la teg mu la ko moo xam ci sa jëmm la moo xam ci sa alal la moo xam ci sa njaboot la xamoo mënoon naa am natt bu gën a metti ci yow walla ci sa alal wala ci sa njaboot am na it lu mu la yéenee dénkal ëllëg ba ci àdduna ki mat a ñee mooy ki ne ci li yàlla bëgg tey daw leen tere da gis ko muy koo xam ne santaa la muñaa kon la kooku day mat naa ñee ndax leneen loo gis nit amee ko rek luy deñ la te xamoo pexam suñ borom man nga ci biir wala déet jayub suñ borom man nga ci biir wala déet te yow amaana yooyu ngay mujj di ñee ñi ko amee yépp xamoo ndax di tax suñ borom joxagula ko mën naa am sax dana la ko joxe waaye li tax joxagula ko am na lu mu bañ mu gaar la wala mu yàqal la mu di la ko dencal ngir ci àdduna waaye mu doon suba wala ginnaaw suba am na loolu it xëy na bëggut sa ëllëg dara yàq ko wala dara koot ko tax na mu xañ la loolaa te yow yaa ngi koy bëgg ba def mënoo pas-pas wala ci sa diine wala ci sa doxin digganteeg sunu borom dara loolu mooy tax bi li di sant di góorgóorlu ci li ko sunu borom di góorgóorlu ci li ko yàlla digal mu cay def kem kàttanam loolu mooy nga xamante ni war na di ndokkeel juli yépp ci weer wi ñu bàyyi ko nga xam ne weeru ci la yonente bi sallallahu alayhi sallam feeñe kon nga ni ci la leer feeñe ci la yërmande feeñe ci la njëggal feeñe ci la tawfiq feeñe ci la gindiku feeñe ci la sunu ëndëg defaroo ci la sunu tey defaroo ndax ci duggooku ci la feeñe kon mat naa war ma mat war waris na ko màggal waaye màggal ga it mooy yooyu ma wax léegi ak li ko taxoon a indi li ko li tax suñu borom bi mu ko feeñalee mu def ci moom li mu def ci moom mooy ak njub mooy leer mooy tegtale yoon yu jëm ci moom subhaanahu wa taala nga xam ne lañ cay fàttalante mooy innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq mooy suñu borom daf ma yónni ngir ma mott li jikko yi rafet yi loolu kon lu mën a ko la waaye nag ca dëgg-dëgg nag boo xoolee ni ñu koy fàttalikoo lu ci baree baree baree bari nag baax na ci léeg-léeg nag yi rax nag ñi àndul ca loola dañuy sukkandiku ca ña koy raxal jàpp ni lépp baaxul déedéet diine du noonu tey am na barab yooyu boo ko demoon nañuy gàmmoo ku ne mën na ko ku ne it mën na faa teew jullit bu nit mën na ko fekk lu am njariñ la it loo xamante ni loola sax bés ko mënoon def jamono bu ne ak guddi gu jot matam na koy def waaye nag waxtu wu ne benn benn yi nga xam ni dañuy mel ni man di wàccu yoon ci lu seen wax ak ci seen jëf ak seen wér bu leen àtte ci mbooloo mi te léegi loolu moo yaatu lool ndax léegi léeg ci nit ñi ni nga leen di toppee ci seen toppukaay yi da ngay gis ci lañu war a nekk bu kenn dee commenté danaan diw kat am na dëgg ci ñii déedéet yow xooloo ña nekk ca lañ war a nekk ñu nit ci liñ war a nekk nga gis waaye génneeluñ la ña ne ca lañ war a nekk ba nga caa wax te loolu moo gën a bari léegi ndax gannaaw léegi jumtukaay yëpp ku ci ne li ngay wut mooy nombre de vie léegi la gën a ñaaw la gën a ñàkk solo la nga xamante moom la ñu di gën a topp moom ngay indi ndax nit ñi ñu ci bari duñ topp waar duñ topp lu baax ndax ñoo mën a yomb ñu ci bari bu ñu dégg waar nañ cay gisee seen bopp da leen di déranger day tax duñ ko bëgg a dégg ku leen di waar ko bëgg a dégg ndax duñ bëgg ku leen indi dégloo si leen di yoon wax leen ñu dégg duñ ko bëgg a dégg su ko defee nag foofu ñun ñaari li ci gën a bari dañ ciy sukkandiku di dal ci moto saw yu foon yi nga dañuy màggal te fi na foo mën di dem ci li may wax waxtu ne kuréel boo man di dem am nañu ca néewul ca la nga xamante ni ka taxawal loola ne ca defu jëlal rek ci lislaam lislaam fi ne kuréel yu baree baree baree bare na ku ne nag yaa ngi revendiqué ne yaa ngi ci alxuraan ak sunna ak comme ci sa liggéey rek ndax ku man nga ne alxuraan moom xam nga dafa yaatu sunna it dafa yaatu kenn ku ci nekk yaa ngi revendiqué lool waaye léegi-léeg nga gis loo xamante ni moom li nga xamoon ci diine dana wuteeg lool waaye su boobaa jullit bi li ngay man mooy jàngaleel waxal ni nga déggee ak li nga jàng ak li nga xam ak na nga ko déggee ndax fi mu ne tey dégg alxuraan yombut dégg sunna yombut loolu yonente bi sal wax ne sun borom pour nam ci ayu da lay dégguloo dégg googu lu jafe jafe jafe jafe nit ñi dañ cee rawante ci ay daraje daraje daraje daraje daraje fi ne tey man ngaa jàng tey ñu jàngal la benn bind nga am ci dégg nga dem ca keneen wax la ci loo doon yow ci sa bopp sax ngay dem ba mu yàgg nga am ci sa dégg bopp bu bokkut te ki jàngal ak nga déggaat lam ca am kon léegi dégg diine lu jafe la waaye ñëpp nag li ñuy revendiquer mooy alxuraan ak sunna waaye nag tëriwut nga gis ni lu ci baree baree bari nag ak wàcca nga ca ak wàcc yoon nga ca waaye nag bul siise kenn bul àtte kenn lii daal la yàlla wax lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax lii la gaa yi bàyyi baax yi wax ci fu ko topp waaye nag bul àtte ni diw mii ma nga sawar wala diw mii sawar la jëm loolu ci loxol suñu borom la nekk ndax nit ki xamoo ci la lay mujj ndax li ko gis man na nek mandar ko mu yonti bi alaihi doon jàngale wala alquran doon jangale waaye man na ca djub amana yi yow li nga seen ci kawit bokkut ak la ci biir xolam ni nga xamé nit man nga ko seen ci melaw baax muy japp di julli di dem ci jàkka ja fekk xol bi li yalla bëgg nekk ci reey ni ci boof kaña nañ ci boof ngistal nañ ci boof rambaaj di wax lu dul dëgg yooyu day ne ci don da yaa ngi gis muy dem ci jàkka xam nga kooku nah, sañ nga ci rafen jot ay yalla sa saa moo jàngale noonu waaye da ci am lool àtte biir la kooku diggante la jàmm bi ak boromam waaye du tee nag kiy jàngale moom lim jàng xam ko man na koy jàngale man na koy wax waaye nag yamal foofu atte yàllaa ko moom ëllëg ndax fi na tey muy yéefar rek muy muy muy muy chrétien muy jullit siif ak ñeneen ñu dul ñoom it bi li ko suñ borom sant ak ki mu yónni ñi mu yónni ñëpp mooy am na ci loolu moom ñëw ci yow dama daa wootaloo rek jotaloo li ci des nag man ku topp baax na ku topp ñëpp ci man la ñuy dellusi ma àtt leen gannaaw nag ëgguguñ ci bisub àtte ba kenn moom mënu koo àtte yow ndax yow du sa sañ-sañ ngay àtte nit ki fa mu jëm ak fa mu man man ngaa rafet njorti su boobaa it mooy gën ci ak jullit doonte nit gis nga ko mu doye di ba mel ni manit sàggan ba mel ni manit ah, ah, amal rafet njorti ci moom xam ne jaamu yàlla la ah yàlla mën naa jëfandikoo ci moom coobareem ak taw fee xam ëllëg yoo xamante ni yow waxula ko te amaana yow li ngay gis ci moom ki ko mel ni man ci càggante ci kaw amaana biiram set na ci xol bu rafet ci yéen ñëpp jàmm te du jëw du fen du rambaaj du yàq loolu lépp dafay mat a bàyyi xel waaye li am solo daal mooy ci guddi gi nu weesu noonu ci ndokkeel ñëpp ñu ko doon dundal ci ni nga xamante ni mooy tax yonent bi la ko suñ borom yónni woon mu mën a dundaat ci xol yi ndax léegi kat wax dëgg yàlla xol yi yu baree baree bari suñ xol yi feebar la ràgg yi xol yi bari na rasa ilal xal bi li ñuy wax caay-caayu xol nga xam ne moo tax saw yu foone moom la ñuy jàngale dëgg ñëpp ak liggéey ci tool boobu yëpp loolu mooy dañ doon jàngale ràgg-ràgg xol yi bari na te da ñoo xamante ni ñu mel ne man nga xam da ngay jàpp ni sax ñoo war a yéen nit leen ubbi war leen defar ci googu wet sax ñoo gën a feebar te loolu lépp it mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu di ko ñu fexe ba te loolu lépp dañ koo jàngalee jàngalee jàngalee jàngalee jàngalee ba def ba dafa dem dara waaye ñun ci suñu bopp nag noo ko noo ko dund sumtu wa juuxun tawilun bahdahu saharun wa xaslatun xamsiyoon bi salat nuppi nuppi rek baat boobu sumtul rek boo ko jëloon rek buñ ko defoon rek fi na tëj lépp def léegi nit ñi dañuy commentaire ci luñ xamul dara di wax ci luñ xamul dara di wax ci wax ci koo xam ne xamuloo ko dara yow image am rek nga gis léegi nit yow yow image lay topp fii da ngay gis tey man ma toog nii rek nit àttan xamuñu ma daara ci li weesu tey daal la gis ak vidéo bi mu man cee commentaire man cee wax lu ko neex te xamoo ci nit ki dara bu dee lu baax ngay wax ci man am nga ci man kumpa bu dee am safaan ngay wax ci man it am nga ci man kumpa léegi nag nit ñi dañuy wax nu mu leen neexe ci nit ci benn image rek buñ gis nga gis léegi ñàkk yar yi ak ñàkk teggin gi ni mu demee dayoo dafa ëpp te loolu dafay feeñ ci réseaux sociaux yi nga gis ñi ni ñuy daggale ay saaga nu mu ci koo xam ne defu la dara waxu la dara bu doon def ak a waxee kooku mbirum boppam la yow sa yoon nekku ci bokku leen pax bokku leen bu faataw ma boromam la yow yaag sa borom la yow loolu mën nga caa maandu loo cay commentaire bay saaga loo cay commentaire bay wax lu dul noona loo cay commentaire bay wax loo xamul bay wax lu sa yoon nekkul te bari na loolu nit yaa ngi ciy dugg yaa ngi dugg yow lu sa yoon nekkul te jullit watu dugg ci yoon nekkul wa min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaxni mooy loo xamante ni yow sa yoon nekku ci ak jullit dugg lu yoonu dëggu te léegi boo ko xoolee loolu moo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo te léegi jumtukaay yi xew dangay dem ba defee yow li ngay dugg sa yoon a wala war nga caa wax fekk biir yoon nekku ci waaw sa yoon ci commentaire bi ngay def defee yow li ngay commentaire sa yoon a ngi ci sa yoon nekku ci yow xoolal sa bopp mën naa dellu ci sama bopp li ma naqari ci ci jikko yu dul noona ak wax yu dul noona ak jëf yu dul ak melo yu dul noona ma fexe ba loola denc man mooy sama waru gar waris nga topp ci commentaire yu nit ak ci déru nit ak yëfu nit yoo xam ne say nëbbu ca boo seetloo tey comme guddi gi weesu xew-xew yu bari xew na ñu koy def te teguñu ko ci loo xamante ni ka jàngale kër ga ka sos kër ga defu ko buñ ko askanale ko kii moo mel ni man mii ci càggante def li mu def waaw te bu melee ni man ci càggante def li mu def it yow la biire ko waxaan lu baax waxaan lu rafet waaye am na foofu sax jur dina nga defe àgg ak moom ndax boo liggéey moom boromam la subhaanahu wa taala loolu jullit ñi ñun jullit ñëpp ah war nañ ci di bàyyi suñu xel ci anam yëpp ci fon toll it waaw li may waxtaane waxtu wu ne te xam ne du ma ci tàyyi mukk it diine du en man damay seetlu toujours nit ñi ni ñuy enante ci diine dafa dem dara muy salafiste baag ibaadu baag murid baag xaadir baag tiijaan baag ñeneen ak ñeneen fi mu ne tey ñi tudde tasa ñi tudde woo tasawuf sax loolu mu ngi ci seen biir ñi nga xamante ni dañoo feeñ léegi xam nga bu njëkkoon daanaka ay ibaadu ak salafis amul xamuñu ko fii ci réew wala bu fekk bu xamee su ko woon sax nag ndax ibaadu daanaka jamono ay soixante-dix-huit la tàmbali foto yooyu dañuy wax ibaadu li gënoon li gënoon xam ci réew mi gënoon koo miin daal bu dee yooyu amoon na it pour nii mu mel bokk waaye du toon a mel nii ndax tey ñi ci nekk ñëpp ay murid lañ woon ak ay tiijaan ak xaajar ñoo ci ëpp ndax ay xaadim ngay dégg mortala seex saaliyu fadlu yooyu ngay gën a dégg ci yooyu kon da ngay xam ni ñëpp fii lañ nekkoon ay witt nag dafa am ci suñu biir buñ naxante nañ waxante dëgg witt yu bari dafa am ndax bari na loo xamante ne ñu ko sëriñ bi tërale woon ci wàllu jàng ak jàngale yu ci bari barke bi nga xamante ni nit ki soo ko yaree ci diine jàngale ko ci diine am ab taxawaay ci moom ci addunaam di ko labiré mu xam diineem xam ni muy doxee ci wàllu addunaam kooku forcément da lay te wet gi nga ko féete day jàpp ni moom lépp loo aajoo gannaaw da di jàngale moo ko waral ndax yow koy ubbi yaa ngi koy teg ci yoon te mag ñi sax nag li wax ji bari bari dañ daan liggéey dañ daan jàng di jàngale bi liggéey barke boobu yi nag dafa tax ñu ci bari dañoo toog ci barke bi waaye nag dund luñ woon jàngale wuñ woon samp ay daal niiwaa niiw niiw woon na da gis kilifa googu mën naa am ci dëkk taalibe yu bari waaye la muy séq ak taalibe yi lépp mooy yónnee fay leetal yu mu leen di jox pour damay liggéey lu dara rek ngir ay aajo ak yitte waaye lu jëm ci diine nag dëgg-dëgg bari nag ci ñoo xam ne nañ ca waroon a doxi doxiwuñ ci witt boobu nag mooy tax ñëli bi ñu dikkee ñu am doole léegi nag ñu ci baree bari nag li liñ doon li sëriñ bi nekkoon bari na tay kilifa yo xamanteni fo foor kenn mënu leen ci ñu ci jëf jëf bu rafet rafet jëf bu am am solo di tabax ay jakka di def ay daara di yar nit ñi di leen tok wa yar bañ jikko na xam yoon woowu da ngay gis ni ndax bo liggé mouride li ñu wax mouride tay naan jiw day mouride mouride lan mo doon lool moy nit ki nga defar ko tiigu ci daara ji muy liggé ak a jàng ba am ak defar xol waye loolu boko xolé am na ñu ca ne waaye am na ñeneen ño xamanteni wax deug yalla ci seen bop rek ci lañu ñu nekk ñañu téye foofa it wax dëgg yàlla ci seen yitte bopp ak seen jëfandikuwaay bopp moom lañ koy def loolu nag ki nga xamante ni lu mitti mitti bu dikkee li tax ñële am doole it su dikkee moom daañu ne yàlla nee na yonent bi nee yow nag argument yi ngay indi yëpp li ci gën a bari faxas ko day xaw ndax léegi yow nit yow bu ñale yow kii kañ nga ànd ak sëriñ bi nga ni mu ne la yaw lan la la jariñ ci sa diine ndax mas na laa wax dara ci diine nga ni déedéet te nga ne yow léegi nitu diine nga kilifa diine nga xam nga doo man a xam nag loolu lay nuru te fu mu toll mi ngi lay sas mi ngi lay laaj mi ngi lay teg waaye yow di bugg lu la jëriñ ci diine te nit ki kat waxtaan yi bu ngeen ko toppee di ko nafar am na ci fii eh, benn nit boo xam ne boo ànd ak ñeent fukki ko yow bi nga diir ànd man lan nga ci jariñoo mu indil ko lépp waaw tey man nga ne jataay bii bu ma fi tàmbalee toog ak léegi kat wax dëgg yàlla sama xam yàlla ak wéetal ko xam ne yàlla doo ngay aji jariñoo moom doo nga mooy aji lore moom doo nga lees war a bëgg moom lees war a yaakaar moom lees war a jublu dolli koo na adduna it na ci sama xol na ma ne àllaaxira moom laa gën a war a bàyyi xel na maa mën a muñ war na maa mën a sant war na maa mën a nangu dogal war na maa gën a mën a nuppi war na maa bañ a yàq ab war na maa bañ a toog fenn di tudd ci ci loo xam bu ko déggoon du ko def nga xam ne damay naan xam ne lii kat wax dëgg yàlla jariñoo naa ko du may déglu ànd ak ko topp ak jariñ ji ndax fi ne kii bañ ab sëriñ foo mën di demit ab sëriñ a fa nekk buñ la ko waxee ak buñ la ko waxut moo fa nekk ndax koy déglu ci diine la moo xam salafiste la moo xam ibaadu la suñ ko bañee boo demee ci ibaadu yi tey ay umara lañ am umara yooyu dañ leen a jox cër dañ leen a jox warma di leen topp di leen déglu bu la dara jaaxalee ci si diine da nga leen koy laaj buñ la ci ubbee lañ la ci ubbee ngay jàpp loolu lu mu doon ci yow kilifa lu mu doon ci yow sëriñ boo demee ci salafiste yi ba noonu boo demee ci seen jiit di borom xam-xam wér docteur Ahmad Lo boo demee ñoom mooy seen sëriñ dañ koy wax ci seen biir nga di ko dégg ndax moom la ñuy déglu wax moo leen doy moom lañ jàpp sañ nañ ko ci seen yoon lañ nekk te loolu mooy dëgg li ci gënul nag mooy nit ki nga dangay dem di offensé waaw mag ñi yow loo leen mën a weddee aaya boo mën a indi am na ñooñ dañ ci àgg naan mag ñi xamuñu woon sunna wala mag ñi jànguñu woon hadis ak am nañ ko bëgg rëy rëy rëy ndax dañuy jàpp ne téere yële dikkutoon fii waaye mag ñi li ma ci wax man nga xay ne sama dund la ak ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak tawfeexam dafa am loo xamante ni yàlla mi xamal ab yonentam duñ ay yonent de waaye xamal suñu borom du fi jóg ku ba keroog adduna di tukki am na loo xamante du duñ jàng ci ay téere kenn du ko jàng ci ay téere loolu sëñ Tuubaa wax ci Masaalikul Jinaan wax ni secret la ilaha illallah moo gën a màgg moo gën kaw ñu ko bind ci téere loolu lu am la gis nga man mi di waxtaan ngeen di ndongalu doy di di tëri bi gis ñam bare na lo xay bu mu masaa dégg ni wax ko man man na ci am dug man na ca am xalaat te da ngay dox bam leer nañ nañ nañ nañ di do ko mëna wax ak kenn kur kay dund loola rek ku dund loola nak soo koy wax day mel ngay wax ak nit bi mag yow lo xam bëgg leen a xam nañ ko hadis boo indi xam nañ ko aaya boo xam nañ dolli ca leneen loo xamul nag kon da ngay ci moom yàlla daf leen a may defal leen ay jagle sëñ Tuubaa dafa am ay may am ay jagle yoo yàlla moo ko ko defal loolu digganteem ak boromam suñu yoon nekku ci moom jëmmi sëñ nag laay wax ñëw gannaaw nit ñooñee am na ci ñoo xamante ni sëñ bi dugal na leen foofu am na ci ñooñ nag ñoo mën a yem ay jaam dong lañ léegi-léeg nga dégg ma koo xëy la muy wax lépp tiw ko fenn lu may ci bakkanam ak ci bànneexam képp loolu moom yaa àdduna naka jekk li ma wax léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy dund ba jóge bi li fi xewaat bari na mooy ñu fi rey nuñ toll ñi leen doon rey daraja daraja lañ doon wut dundal seen bakkan duufal ko te ñoo ñëpp ay juuti la reyante bi doon xew ci biir bañ ne xew seen diggante buñ ci wax lu ko waraloon bakkan adduna bànneex daraja mooy li ko waraloon loolu nit a ni mel nit a ni mel lii tax ay yonent di dikk ak a dikkaat mooy saa soo waxee ba nit ñi tege ci aw yoon booy dox tuuti ñu de nekk leneen loolu mooy li am yonent bi saa su bi mu fi bàyyi koy mag ñi it saa ku fi dikk andi njub yeesal li yonent bi saa su doon dund boo fi jógee leneen xew fi suñu yoon wii du yoonu murit tey bari na lu ci nekk xam xamante ni bukk te dara dara dara li seen bu doon jàppale tey su fekkoon te ne tey kilifa yi ku ci ne man nga muy muy kilifa yi diine yi lu xew sëñ Abdou Lahad daan def lu xew ci yoon wi wala kuréel bu ci judd ñu xam ne lii lu yees la ci day taxaw dindi ko ba mu set ñu xam ne lii bokku ci waaye léegi gannaaw lu ci baree bari mi ngi ciy dund mi ngi ciy dox te léegi-léegi wax dëgg yàlla boo xoolee danañ bañal nit dara nangul ko nit te même chose lañuy ñuy def même chose la ñuy def te lii may wax ñëpp mën nañ ko vérifier da ngay gis kii ñu ne kii li muy def du noonu ba bëgg ko xaw a xeet amaana kooku sax njariñ lam am ca biir ci nit ñi kii amul waaye moom ñoom ñoo bokk lenn lu ñuy jëf ci sayir xëy ki kii li muy sosi bi mooy tax nga xam ne yow li nga koy tënk lépp kon li muy sosi ci yow te ko boo sax nga war a gën a jekk ndax sa njaboot buy sosi ci yow war nga koo mën a wax ne ko lii ngay def du ni li ngay wax du ni li ngay jëf du ni ah nii nii nii moom nga war a jëfe mooy tax kon mag ñi liñ doon dung lu leer la lu set wecc la yemuñ ci xam téere bi téere bi yàlla bi yemuñ ci xam wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye waxandam naa ñun ne dund naa xilman suñu borom daf ñu koo jagleel loolu mbaax yàlla ak yërmandeem ak tawfeex ku cay wax na ca wax xam wala nga dugg li ci doftale sëriñ bi jaanam wàcc na bind na bàyyi fi wax na ñu dégg jëf na ñu gis. fi mu ne tey boo xoolee inondation yi xew Touba nit ñi dañ leen a yoru ci wàllu xel ñu ñu léeg-léeg dañ ko baatine la baatine la baatine la baatine la ba mu ëpp inondation lan la joteeg baatinu sëñ Touba lan la joteeg leneen lan la joteeg leneen nit ñi muri di ca werante kee naan seen sëriñ bu mënoon lii kee naan lii laa loolu ban sens la am Màkka ma ngay inondé Madina ma ngay inondé sëriñ bi jaamu yàlla la boo xamante ni yàlla dafa def ci moom ak leer mu bokk ci ñu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wiiruwaay bu mat sëkk wiiruwaay di muccuwaay di rawwaay muccuwaay ak rawwaay bu ñu koy wax mooy jàng ak jàngale ak tawfiqul ilahi ñu ko ci suñu borom defal nga ne boo ko toppee da àgg ci loolu lañ la jotee nit ñi bëgg indi débat bi foofu kii naan kii naan léegi nag ñun nit ñu yare nga defee ni moom sëñ bi moom bu doon taw dana li wax ni taxaw wala waru fee taw wala bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee yonent bi ci dundam rek jaar-jaar yi mu jaar yëpp ana yàlla lu doon làqatu ci xaaru xiraa la nekkoon di làqatu ñu doon làqatu ay ay ay noonu lu ko tax a ngaan dem Madina ah bañ ko ko lor bañ ko lor ak njabootam am déet ah moo tax mu yebal ak njabootam ci xabasa ca Éthiopie bëgg ñu ah, ci foofu bëgg ñu foofa di làqokaay ci chrétien ah liñ ci ray lépp kenn man na bu ñu tey tay di ko sànni ay dog di ko sànni ay xéer ana suñu borom waaye donc da bay non am na yeen yooyu dañu leen a xeet rendi rendi ñi dañu leen a ñi ñii dañu leen a ana yalla am da defé ñoo ñooñu dañu xamul dara duñ ay yeenante alayhi salatu wassalam ay jaamu yalla lañu yalla def ci ñoom coobareem señ bi diko wat lepp def na ko ñun ñi ñu no fi nekk di wax ñun wër wax ak def lu wër def señ bi jaamu yalla la ndax nit ki du bokkaale yalla nit su mooy chèque ak jullit du ko def te sëñ bi ma ne na ko jàngale njàngale mu leer bu set wecc ca xam-xam bu jub bu set bu leer nañ ñu wax ko nit waaw waaye bo léeg-léeg nga dégg koo xam ne na muy waxee te kilifa lay doon ah du du noonu su ko defee yow loolu lépp li ngay gën wut ci li ngay wax mooy nit ñi dellu si ci yow sëñ bi ngay wax yow pour nit ñu dellu si ci yow la waaye bu nit ñi dellu sax ci sëñ ba waaye ci yow ngay diir yow ci sa bopp te yàlla nag ca lañu war a leer loolu nit ñi dafa am loolu coobaree sunu borom la sëriñ bi li ko war def na ko bind na bàyyi fi lim jàngale lu leer la lu set bëcc la nun nag dañuy jël la sunu bakkan bëgg ak la sunu bànneex bëgg ak la sunu adduna bëgg mu jël ko la ca def ñu teg ko fee ba noppi nag bëgg lu yomb boo xam ne sëñ bi nee na sëñ bi sëñ bi lim ni nee na kenn daa xam nu toll lim ni dugal ci jàng alxuraan ñu ngi koy def lim ni dugal ci werd ni ñu koy def lim ni dugal ci noppi ni ñu koy def lim ni dugal ci ñàkk fen ñu koy def lim ni dugal ci ñàkk rambaaj ñu ngi koy def ah ba noppi lu ñu bëgg ko yóot lu ñu bëgg ko xëcc te loolu mooy yoonu bi li muy santaane mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon gaa yu baax yi nekkoon ci loolu mooy ay waxam mooy mooy am bindam dëkk boo demee Touba tey la fa nekk lépp sëñ bi ko ñaan lu ko jëmbal gannaawam la fa lépp am di yépp ñaanam bu suñ borom nangu la nitu yàlla yi ku ne am nga sax may ko kenn fekku ci kenn fekku la ci kenn waaye loolu ñi fi ne ñoo ko war a defar gis nga lislaam bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee bu julli ñu toogoon ah yonent bi daal yàlla daan defal lépp lépp dina baax duñ ci jot nit ñi dañuy dellu fa nekkoon ca kéefal jëm waaye ay nit ñoo ko téye téye rafet di ko jàngale jàngale mu rafet ba mu tasaaroo ba mu tasaaroo sëriñ bi su fi jógee ak mag ñu mel mag ñu baax ñi la war mooy ñeneen dondu téye ndono la ci njub ak siraat ak mustaqim te bañ koo teg ci bakkan ak bànneex ko par par loo ko sant ko deret loolu boobaa day indi ay yàqu-yàqu man maa ngi ci gis koo xamante ni def naa ne biir kër sëñ Abdou la nekk naan ndox mi bari ndox mi bari ku toll ni kër sëñ Abdou Lahad sëñ la ko war lépp def na ko lim liggéey ci dëkk ba ñëpp xam nañ ko ay waxam mi ngi fi ba tey des fi ay jëfam mi ngi fi ba tey des fi ah nga ca boole naan murid yi dañoo war a ñëw góob bu gën a góoxee sax mu jaax yow tàmbali la naan yow looy wax sa kër rek naan moo moo moo gën a gaaw de jur fi mu yow kay ne la nit gis ngay naan rek ngeen gaa yi ay cële nit sëñ bi dañuy bari xeeti wax yi yoo xamante ne wax dëgg yàlla man de su ma doon wax du ko wax du ma leen waxee nu lii ma leen waxee nu laa waaye man daal su ma doon mën a du ma loolu mooy liggéey kii dafay am loolu lu naturel la yeneen mën nay xew gis nga fi mu ne yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mën nay xew loolu coobare suñu borom la ci jàmm ma lu ne xew fa kaaba gi ay na ci jamonoy xajaaj ba nga xëyee ni kaaba fi tuuru ci deret daanaka xaj jaxir mu ana yàlla ah surtout bi saa sana bi ñu leen di rey reen bi ana yàlla ana yonent bi dafa am loolu amrun tabiiyi la loolu mooy aaday suñu borom ci kaw suuf lu naturel la pour dara jur wax jur soow jur kërti kërti jur yeddante jur garante lu ne xew na ci biir lislaam bu ñu demee bayee la fa imsaaku xamaa shajara baynahum lu war la la xew seen diggante ñu bañ ko wax la xew kenn mënu la ko netti kenn mënu ko lu tax ñu ne bu leen ci wax kon loolu ëpp na tool li te ku ci ne li rafet ci yow fii ne gën a gëmul rafetut rafetut ci moom fii ne gis nga nit ñi li ñuy def di ay jullit ñii ay chrétien wallaahi buñ la waxee lay dëgg buñ ñuy xool ay reen da leen di jàpp sax <laughs> waaw jullit ñi ñi ngi jëfandikoo ci pas-pas ak ngëm yàlla bu wér ak lii lañu suñu borom digal muy suñu pas-pas waaye gis nga ki ko gëmul bu lay xool dañuy reer ndax dalay jaaxal nit lu mu am pas-pas rek mu rafet ci moom bu leen kenn nax gis nga nit lu mu am pas-pas mu rafet ci moom loo amul pas-pas rek loola pour yow du dara noonu it la ko bi defee ci keneen ku dul ab jullit fii ne tey murit bu ne ni nga gëmee sëñ bi ni nga ko ni nga ko bëggee fii ne ku nekkul ci loolu da ngay jàpp nekkoo ci dara noonu la ñuy waxee noonu la ñuy jëfee di ci xët-xët yi fekk dee nit keneen ka jëlee si lam nekk noonu nii la nii nga nekk ni mu la jore rek kenn ka jëlee si noonu la ko ñore noonu la ko bëggee noonu la ko gëm nga xamante ni yow fii ne léeg-léeg nga dégg suñu jàng yi noonu ni ñuy jàng ni ñuy jàng ahbabtu ni ñu yëkkati yeeg ni ñuy yuuxoo xam nga noonu jàng nañ ahbabtu mokkal nañ ko buñ koy jàng nga xam waaye ki ci xamul dara bu déggee ñu yuuxu waa dara waaye ñi ñu yuuxu <laughs> ah, loolu noonu lay demee te lu neex na ci lu rafet na ñun ba dañuy yuuxoo ko jox waaye ki ci bokkul daan ñii mu bi moom dañuy yuuxu lu doon ndax doo ma xam ci benn baat moom day fekk nga jàng ca dara baa nga xam ci dara keneen tam fii ne léegi nga dégg ñeneen xëy na jàng du bëgg tudd kenn <laughs> man na maa yegg ci sa bopp dégg nga waaye léeg-léeg day xoromu ci yow yow ma ca nekkul loolu mooy adduna léeg-léeg nga gis koo xamante fii ne fi fi muy xoolee fi muy xalaatee mooy infrastructure masala tey jumaa ji ñun réew xam nga lii seen ko am gis nga yoon boo demee lenn na ko bay nii li fa nekk gi defaraat nañ ko ay yoon jàkka ji ma du ma ko jëndali muy muy muy muy muy masjidil haram ak masjid nabawi lu ci ne ay lii nga koy fekke tey di yéemu di jooyi ci ci njool Màkka cey ki tudd fii lenn ci mbiru doon noonu ba mu fay jóge ba mu fay jóge ay doj ak xeer képp fa nekk <laughs> lépp gannaawam yow li ci tudd sa passeport lépp mooy tax ñi dañuy dem ba léegi eh, li ñuy gën a xool bokkut ak fi fi li taxoon diine dikk mooy mooy mooy njub mooy jikko nun nag dafa mel ni dañ koo wëlbati ci leneen waaw loolu lépp nag day mat a bàyyi nit ñi li may wax waxtu ne il faut que nuy wuute nag wuute gi mun ta kenn ku ci nekk nag la nga nekk mu doy la waaye waaye téyel jàppal waaye la keneen nekk mu doy ko it waaye tey lii ngay dégg kii am na fii lii xew na fii euh, kay muri bi ñee di ca werantee ka ñee di ca wax li nga ca tontantee ka wax yooyu yëpp ak jullit daal da koy daw tey lii samay bokki tey bi kuy nangu sama léegi de maa ngi lay dégg yenn commentaire yi leen ci ne nit sëñ bi ne ci suñu bopp ci fexe ba suñu ko rafet suñu wax rafet suñu jëf rafet suñu melo rafet war noonu doy sëkk ku ci ne da nga war di zikir war di ko jàng alxuraan war di ko teewlu boole ko sa liggéey sëñ bi war na laa doy sëkk wares loolu loxoom du tànkam du boyel gëtam du boyel noppam nga nekk loolu ab jullit ci loolu daal la ko war mooy gannaaw boobu wéetile yàlla borom subhaanahu wa taala xam ne yàlla ay jariñ xam ne yàlla mooy lore xam ne nag ni sunu xar kanam yu wuutee nag ni la mbir yàlla wootee de fi ne nun ñii ku ci ne am na loolu yàlla jagleel lu mu jagleel lu borom ci suñ bind bi rek mën a ku ci ne sa jëmm la feeñ ak la biiru la la defal defuñu ko sax noonu it mel ni lépp mel ñëpp li nu war mooy sant mooy farlu ku ne la ko doy mu téye ko te jàpp ko te yàlla rek ndax li may wax waxtu ne foo dem rek am na ñu fa nekk la war a ne am na ñoo nit a yem waaye ñu mel ni man yem ak man it ah bu tax nga jël mbooloo ma yëpp yem nañ ko ba dégg xew Tuubaa mën naa xew fu ne day xew Màkka day xew Madina te yeneen sax man naa xew ndax lii adduna la gis nga tabax bii lu mu dër dër dër am na ab bopp ba ca àggee da yàqu ci suuf la jógee ci suuf lay dem nit ci suuf la jógee ci suuf lay dellu oto yi ngay ci suuf la jógee ci suuf lay dellu bi may ñëw léegi man ak sëñ Maodo dama ne ko adduna bi dana toll foo xam dara du la mën a lor ci sa pas-pas ci sa ci nañ la yare ci nañ la jàngale ci nañ la xamale ma ne ko gis nga oto yi dafay nuru lu rafet waaye ma ne ko lépp ci suuf la jóge lépp ci suuf lay yow mi ci ne ci suuf la jóge ci lu mu doon boo ko delloo ci cosaan la rek yàlla lay dell yàlla rek ci la la mën doo ko mën a gis li ma doon wax nag ci màggal bi fii na am na ko bu toogoon ci photo bi ni muy xalaatee ni muy gisee lay defee ne ku ci toog rek noonu lay gisee noonu lay xalaatee am na ko bu toogee ci oto bi ni muy xalaatee bu ko amee wala bu amee kër gi wala bu amee nangam wala bu amee nangam wala tolluwaay dara jaam yi nam cay doxee ak nam cay waxee rek lay defee ni ku agsi foofa rek noonu lay doxee noonu lay waxee fekk déedéet yow da ngay attali ni sa bopp te loolu moo baree baree baree baree bari ba dem na dayo ku ne daal li nga defee ni boo nekkoon ca loola wala nga amoon loola wala nga melowoo woon loola ni nga réaction bi ngay am moom ngay defee ni ku ne ca loola rek réaction boobu lay am fekk déedéet nit ni seen xar kanam yu ñu ñeneen seen lepp wuté kon ñepp na bokkat gëna a góorgóorlu bokkat gëna farlu réew mi ñu bokku dëkkee lepp lo xamante luy défar la nako ñepp di wax waye légui jamono bi limay wax waxtu ne par par lo ngi dafa bari fi ne dal ki nga àndal lu wax dëgg la ki nga àndal lu wax du non mo fi gëna bari da ngay gis ay andi dembu yo xamanteni tay tey jii nañu nga gis démb ñoo xam ne mus ñoo mën a tey jii ànd nañ da ngay xam ne ñii nag doo xam li ñu mooy tax jullit bi daal wax wu ne li bokk alalam mooy mu xam diineem fas ko yéene xam fas ko te yàlla tax di fàttali bu ëllëg te di ko bàyyi xel di gis ni dund gi mu ngi jeex te xamoo fu sa dund di yem xamoo fu sa bakkan di yem kàttan gi mi ngi wàññeeku yaa ngi jëm ci ak tële yaa ngi jëm ci ak manadi li gaare ci aduna bari na te xamoo lu la ci gaar ci fànn yépp ci sa yaram ci sa alal ci sa njabot ci leneen lu mëna a doon di yaakaar naa daal di toroxlu di sant di ñaan di foglonte ak suñu borom war na la doy soxla ñun ñëpp war na la doy yitti ñun ñëpp te ni yéenante jàmm te loo xamut maanu ca nit léeg-léeg nga dugg ci loo xam ne xamoo ca dara moo xam ci jëmmi nit ki la moo xam ci famille la moo xam ci dëkkandoo la moo xam ci leneen la yooyu yëpp nit ki daf koy war di bàyyi xel jullit daal li ko war a soxal mooy waxtu ne luy dolli pas-pasam ci yàlla lu koy dolli ak wéetal yàlla lu koy dolli ak gën koo gëm lu koy dolli ak gën koo bëgg lu koy dolli ci ne ci diggal yi lu koy dolli daw loo tere yi kem kàttanam loolu moo war a doon itam nu def ba ëllëg bu dajee boroomam duus du sëgg loolu daal moo war a doon dëgg dëgg ak jullit da war a doon yitteem mooy loolu xëy fexe fàgg lu lew loo xam ne da nga mën a téye sa ragal yàlla danga nga taxaw sa njaboot loolu lu am solo la ak jullit bàyyi xel loolu war na koo doy sëkk soxla xalaat turaayu bàmmeel xam ne ku ne yàgg ndox jëm ci mu yàgg ak mu kenn ku ne ci noonu rek yaa ngi jëm ci ku xëy am kàttanu laal ndox xamal ne bis dëgg des la koy laal la koy li ngay sol nii mu rafet rafet rafet xanaa ne bi sa dikk boo xamante ne lépp def la koy rafleel ni nga rafle woon bi ngay dikk lañ ngay suturaale sol ba ñu amaana sax day ci biir suuf loo fay fekk koo fay fekk day leer day lëndëm nu muy mel lépp sëñ bi ak jullit njàqare yooyu danaa def ne war na koo doy su ko defee bokk gën a góorgóorlu bu baax bokk gën a faru bu baax jiital suñu kër ëllëg suñu kër tey di maandu ci lu suñu yoon nekkul te yàlla rek tax ñoo sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla kat daf noo boole te li mu boolee yaakaar rek la kon waxtu wu ne war na ni di soññante di dénkante di fàttalante maa ngi dénk bokki teel bi yëpp it ñuy nafaraat lebiirante ñu di ko nafaraat bu baax a baax nit it day yuqat léeg-léeg te léeg-léeg nga gis ku yuqat yuqat goo xamante ni dana ci bëgg a yóbbaale nit ndax lu koy delloo si léeg-léeg mën naa jafe yaa ngi dégg Serigne Samba yi dana koy nettali man mii daje na ma ak loolu ci benn ci téere yi mu wax ni ay gaa yoo xamante ni suñu masaa yuqat dañuy dem ci diw rek mu delloo siwaat leen ñu sawaraat doomu aadama moo mel noonu das koy fàttali ndax dañoo mën a fàtte. ndax bu ñu fàttali rek fa zakkir fa inna zikra tanfaul mu'minin ak in nafaxat loolu ñu di ko bàyyi xel fa waaye bu ñuy dem rek nga xam li ñuy lépp adduna rek la bakkan rek la bànneex rek la nit ñi rek la rawatina léegi nga xam ne pénc mi bu njëkk lu ne mën naa xew te fi nga nekk doo ci jot doo ko dégg doo ko gis doo ko xam léegi nag lépp mu ngi ci sa biir néeg waxuma la ci pénc mi waaye lépp mu ngi sa biir néeg te léegi gone yi kenn mënatu leen a contrôler ñu ngi téléphone di xam di dégg di gis li mag ñi dégg li mag ñi gis aw ñaaw téef da daan am mu doy doy waaye kenn du ko mën xam fam xewee rek fa la léegi nag ñaaw téef bu xew boo xoolee réseaux yi nit ñi dañ koy nettali ñoo koy nettali sax seen bopp amatul kersa bàyyi te bàyyi bàyyi duñu xel seen borom li ko waral maanaam dañuy dund dund ku doon ab jullit ku gëmul dara ku yaakaaru dara koo xam daal sa liberté totale nga am ndax yow xalaatoon lenn loo xamante ni ab julit nga bu bu am luñ la bàyyi loo xel te léegi dem nañ ba loolu ñun ñu di ko dund te bawuñ ci sunu xel sunu njaboot di ko dund te bayiwuñ ci seen xel te loolu lépp mat nay waxtaanaat mat nay biir di moo gën werante yi ñuy def ci suñu diggante toolu bi islam bi yaatu na de murid yi man nañ cee baya baya baya bay ba keroog ñuy génn adduna te du ko tax a set tiijaan yi mën nañoo bay ba keroog ñuy génn adduna te du ko tax a set yi noonu yi noonu sunnit yi noonu siid yi noonu salafis yi noonu ibaa yi noonu ku ci ne fa nga ne yàlla xam na ni nit ñi ni ñu baree ak li ñu war a liggéey ni mu baree ak li ñu war a defar na mu baree bu ñun ñëpp defar képp tax noo jug te kenn parcours loo wut fu waaye taxawee ci lii yaakaar naa ne ñëpp la ko taxaw génn parpandoo nañ génn en la ko doy na ko jàpp waaye na ànd ak jikko ju rafet na ànd ak maandu na ànd ak rafet li nga jàpp ni ko fonke it na nga xam ne la keneen téye yi kooku noonu la fonke koo kooku noonu la jàpp loola su ko defee ñu ciy bàyyante xel ci suñu biir baax a baax a baax foofu mbokki tali bi nekk it ci biir ak si bitim réew maa ngi leen di ndaje yi nañ ko fonk moo xam ci dajakaay yi ñuy dajale ngir di fàttalante ak déngante kenn ku ci nekk di ca dugg di fàttalante kenn ku ci nekk di ci dugg di déglu ndax fi ne kenn ku ci nekk yàlla mën naa def ci yow kàddu goo xamante ni mën naa yee ci yow yitte ju yitte ju ju kawe sax waaw kon nag ñun ñëpp nañu bokk gën a góorgóorlu te bokk gën a farlu baax di fàttalante di dénkante eh, dëgg di dénkante muñ di ñaanal suñu borom jéggal suñuy rëcc rëcc te bokk na nangol suñu ñun te dox suñu digganteeg seytaane te dëgëral na siraatal mustaqima te musal ci ndog yeeg pàtte yeeg musiba yi ak balaa yëpp te defal nu mujj rafet aduna lépp ak mujj rek a ca am solo yàlla na suñu borom defal mujj rafet yàlla na suñu borom defal mujj rafet yàlla na suñu borom defal mujj rafet àndal ñu lépp nag di masawu bu baax a baax ñi nga xam ne mbënd mi yàqule nañ ci lu bare bare bare ak bakkan yi nga xamante ne suñ borom dogal na ñu rot ci yàlla leen sa borom jéggal te yërëm leen te na ñi nga xamante ni yàqu-yàqu yu bari na lool waaye yàlla man na wuutal lépp ñu fi bàyyi ko yàlla mën na ñoo wuutu te waaye ku fi bàyyi woon njaboot yàlla mën na koo mën na koo wuutu ca njaboot ga kon yàlla na yàlla wuutu ca leen ci njaboot bi ñu yàqu li yàlla moo leen ko kon nag coobare jooju taw feex ci ñoom ak jàppandal gannaaw loolu ku ci ne yàlla mën na laa joxaat lu kawe sa njort noonu ñaan suñu borom nga xam ne dara tëwu bo ci xamanteni amna ci ay yaq yàqule sunu borom nga xay ne dara tuub ko yàlla na ko yàlla ubbi leen buntu xéwal yu yaatu te jàppandal ko to sambal ko ko te aaral ko ni fi bayiko koy njaboot fa bayi fa leen fetol yalla na leen fa sunu borom fetu ko ma xam ay yërmal yi ak tawfeekam su ko defé aduna yi jullit bu ci ne la ko war moy sa mbokkum bi lu ko dal ci lu baax nga santale ko yalla waye lu ko dal ci nattu yi muñu le ko gunge ko te muñu le ga ci lepp loo ko tanee loolu ko noonu ko sëñ bi suñ santaane loolu ñëpp it nekk ca mooy jàppalante dimbalante taxawante ndax ki ngay jàppale tey boo ëllëgee mën na laa jàppale ki ngay taxaw tey bu ëllëgee mën na laa jàppale ndax mbir yi moom noonu rek la mi lay def fi ne tey day dara day dem nga di ko seetaan soo liggéey loola mën na laa daal mooy tax ab jullit du seetaan bokkum jullitam kon noo ma masawu ñëpp ah eh, accident yeeg ñii dem ci géej géej xew-xew yi ci xew yëpp daal yàlla na yàlla woyofal te seral te ubbil ñu suñuy xel te leeralal na ko ba muy xiir ci ñuy dox jëm ci loo xamante ni suñu njariñ kese lay doon ci wàllu diin ak ci wàllu adduna ak ci wàllu alaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah